Saalum am na Ndangaan Ndangaan am na Medina Baye Niass sëñ Mamour dégg nga wala dégg nga voilà ma fàttali il y a un changement tout de suite du côté des enseignants xam enseignant le 15 est entré pour apporter du 109 de la classe de 5 sans plus

Euh, donc vous livré Ben Match tout à l'heure euh, face à votre adversaire. Euh, nous gagnons sur série de tirs. équipe bu ñu amoon doon ko joué à Tamba je pense que moom lañ ko bu ñu doon joué Tamba vraiment bu ñu koy joué yàlla lu mu dogal moom tamit tamit lii tey bi suñu football quoi ñun ñëpp ñu da xoolee trois derniers minutes ñu dugal deux nga xam ne bu ñu ko njëkkee woon kon demee woon. nga revenir encore euh, ci lu gën a fóot ci match. lu gën a. lu gën a bon. sant yàlla rek parce que match bi moom vraiment yombul yombul ñëpp xam nañu ne ku def déplacement ñu ngi fi ndam nga bëgg donc peut-être ne mën ko gën a bëgg loolu laa ko mën a waxee quoi mais ñu di ñoo ñëwoon pour jël ko mais on a tout fait essayé nag bi nga ne Tamba vraiment duñ def c'est rare trois minutes nga égaliser deux deux dem ci ci kii vraiment di remercier joueurs yi di leen encourager. te lan nga gis sama bopp. bon ma ko waxee rek suñu système de jeu ñun suñu mbëri maanaam wàcc bat bi football Tamba loolu la def ko wàcc bat bi football amul sànni sax mais tey dañoo ñëw sama daay réer donc mi temps wax nañu ñoom mais bu ñu ñëwaatee ñu teel a encaissé affaire bi lépp suñu football bu ñu ko defoon vraiment duñu a excuse-moi. yow laa soxla coach donc euh, nga livré benn match léegi tout à l'heure ak euh, seen ak euh, mooy équipe bu Tamba ngeen mujj gagné ko ci série de tir au but dafa ñu jàngat ci match. waaw match bi ñu ne waa waa Tamba la woon vraiment football yàlla def ñu gagné mais bi yomboon na ci ñun au départ mais à la fin xaw na métti suñu bopp te ñun parce que def na changement yoo xam tamit vraiment après gis nañu.

te nit dafay juum ku nekk dafay juum mais beneen yoon danañ jàmbale affaire xool affaire bi. léegi bu ma leen qualifié ngeen fi mu toll nii demi final nan ngeen ma war a préparer seen bopp. waaw bu ñu demee tey dinañ waxtaan parce que amuñu entraînement match d'entraînement amuñu. voilà kon parce que dañu bett dañoo toog rek. lii lii donc nag bu ñu demee dinañ ko xalaat xoolaat taxawaay bi gën a defarwaat jox na organisation bi nag la ko jox bu baax préparé bu ñëwee ngeen jaar ñu mën a am mm. mais vraiment ñu ngi félicité ñëpp quoi maa ngi félicité samay joueurs di félicité yi vraiment di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam daal